léegi nag comme wax nañ jàpp bari ñu bëgg wax euh, waat ci wàllu tiim tiim nag li koy waral mooy nga ñàkk ndox moo jàppe wala nga am feebar boo xamante ni man moo la tee laal ndox mi wala ndox mi wóoloo ko laal ngir ndox mi wóor ah, ragal nga ne jàngoro am na ci ndox mi wala yow am nga ay góom wala ay feebar yoo xam ne mënoo laal ndox mi wala ki yor ndox mi day jaay te njëg gim mu koy jaayee amoo njëg loolu boo boobaa lay nekk ci farata ci yow mooy lay nga tiim booy tiim nag. da ngay teg sa loxo ci suuf doo ko teg ci basan doo ko teg ci xeer woo xamante ni xeeru ciment la il faut nga teg ko teg ko ci suuf say loxo yëpp ngay teg. waaw xeer xeer yooyu ñuy faral di gis ci jàkk wala mag ñi di ko yor yooyu tamit mën naa wala xeer yi mboolem lu xeer ak suuf rek moom daal na bañ a ciment dugg ci wala ñax wala bant da ngay teg say ñaari loxo ci suuf boo tegee sa ñaari loxo ba pare bo yekite nga dem masaay sa kanam nga masaa sa kanam ci nopi ci kanam ngeek lepp bam bo pare masaa go ngay masaa farata la nga tegat tegat solo ci boo ci suuf nga masaa yekiti masaa sa loxo jor ba ci sa conc li ci ci biti bi ak ak ci bir bi nga continuer wat ba ci cat barami yi nga demat ci loxo càmmoñ bi masawaat ba say conc delawaat ci biir bi ba ci say ba baaraam waaw moom ñaari teg yooyu la teg bu njëkk bi moom mooy farata teg bi ngay teg farata la pour masa sa kanam farata la masa loxo bi nag moom sunna la moom du farata boo paree nag nga jóg li xam kàbbaar fas yéene julli